Well, ورحمة الله تعالى وبركاته فالله وهاب يا رساق يا ملكي لفت وهب لي وسقني كن الآن ديقي أجلا عجلا بالمسي محمد الدين حتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوعي لتوبة وحميني وقني أدى الورى وتريب الاسم مسكنا كالسماء والأراضي والهواء بلا مشارك لي مشكو أنا أجب وسلم بسم الله الحسن دي محمد وتفلي بايخ مدانا سبحان ربك رب العالمين السلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والقديمية ñëpp kon waaye mën di seetaane mbaa nga ñu diglu ñu leen di dalal ci bisub jirim nga xamante ne mooy journée nationale bu jirim yi yaakaar naa senegal daa mel ne mi ngi fi soogaam daa mel ne it kër jirim gi nga xam ne mooy kër maam Jaara gi ci Touba ci Daarul Xadim ci ci yoonu Touba Belel yaakaar naa kër googu day nuñ suñ suñ gëstu yi biñ koy taxawal mooy kërug lislaam gi jëkk ci Sénégal goo xam ne day taxaw ay jur war nañ nag informé woon nañ ci bu baax a baax sunu mbokki nasaraan yi ñoom ñoo ko baaxoo woon a def biñ defee lii sax nag magal gi ñëw nañu dem ci dali këri diine yëpp wax ne kat dañoo bëggoon yéen yéen ca foofa ngeen def lu mel nii kon day kon liggéey bi dana gën a yaatu tey demoon te awoon rek ut fa këru jirim tuddee ko soxna faa wadd ci ci wele loolu kon dana baax loolu kon maanaam nga xamante ne te ne boo demee Kaolack boo demee boo demee Ndiassane boo daal wax ko ne daal dañoo bëggoon liggéey bi yaatoo noonu nga xamante te tene suñ ko defee kon kon islam dootu jooy bay dem dem ci keneen boo gisee bayit bi nga xam ne mooy tiisaru bu ñuy bind mooy waltu bashir bi yal yataama jamian ansihim bi abaahum kulla xiini sëñ Tuubaa moo ñaanoon wax ne borom bi day na nga na bigal ci man jirim yi fàtteloo leen seeni woy jur ci waxtu wu ne ñu ne kon kat bayit woo ginnaaw sëñ bi ko wax moom moom am naal la am naal rek la boo xamante ne da koo naal ay dongaam ñoo ko war a jàllale kon noonu yàlla baaxee nañu ñu bokk ci dongam yi nga xam ne ñoo ko jàllale sëñ Fallou njaay Guédé moo ko xalaat ba mu ko xalaatee ba xam ba toqee ci am xelam takkusaan timis mu daal di may woo ne ma day am na day xalaat bu ma am ma ne ko lan la mu ne ma day taxawal kër ay jéem ci ci Tuubaa ma ne ko ah loolu de moom rek mooy ci rafet na lool jekk na de waaw loolu loolu jekk na moom baax na xalaat bu la. kon de kon bisimilah xaw ma nag ba xam nañ koy defe nag njaa ciy jóg bañ jógee di gëstu am na seen soxna soo xam ne fii ci Touba doon na yëngatu ci lii doon ko jéemantu waaye yëf yi mënut mënut a dem maanaam daal daa amoon xalaat ba ñu wax ñu ko ñu dem ca waxtaan ca ak moom bañ ca waxtaan ak moom mu wax ñu xalaat bu am solo mu nañ waaw yéen de su su ngeen bëggee am ay fonds bëgg ay ndimbal te ko tuddee Teresa Maria Teresa mooy jigéenu nasaraan bu am solo boobu ko am solo la 98 la nelaw yaakaar naa wala 97 maanaam daa jógee Angleterre dem Inde ne ni ci biir ñu ñàkk ña alalam yëpp mu def ko ci ñoom bi mu faatoo bi mu faatoo loolu loolu lu mat a waxtaanee la soxna Maria Teresa bi mu faatoo der bu muy julé la bayyi satala ga kurus ga ak ak ak traxlay ba alam jep lol la lol lol nak lol nak eh, bindu bu baax fu mu mën di dañ ko wara jeli sohna Maria Teresa sohna tan te ko tudde kon de ngeen am kon dimbal ñu se fal jani ah loolu ba sax ki na waaye nak ginaaw nañ am nañ am maam jaara ko kon kay nañ ko tuddee kon loolu mo andi kër maam jaara ji nga rek kon moom nag sëñ ta tuddee Maria Teresa donte ne dagan na ndax sëñ Tuubaa ba muy tagg soxna Mariam moom ndey Seyduna Isa alayhi salaam da doon tagg booba ndey jibéer ba ndey jaam ba jibéer ba mooy soxna Mariama alayhi salaam jaam ba mooy Seyduna Isa alayhi kon moom loola kon mën naa baax sax waaye nag nag ginnaaw am nañ maam jaara kon doy na loola muy mars 2013 ci lañ ci jóg mars 2013 ci lañ jóg nag daal di nag bëgg a jëmmal nag xalaat bi bañ ci kër kër fuñ fuñ koy fuñ koy kiyee fuñ maanaam léegi lu war ci yor xale yi jo dem ci mbakki gi moo tax ñi nga xam ne ñoo yor ci wàllu xale ñu ñu ko ne lu kat dañu bëgg taxaw taxawal dal ab crèche pour lire yi ne ñu ne ah lool nak mom amul jëmëntu leen koy man rek mba ngeen ba waaw amul jéemantu de ndax loolu bakkan la léegi fi am nañ euh am nañ fi léegi 6 bo xamantene tribunal bo spécial xalé la am na ci mbakki gi ñu ñooñu ko wax de bañ gën ñu ñu tit lool ah kon ne kon xanaa kon moom kon xana docteur Niass pharmacien boobu nekk matu jambar la ñu dem ci wax ko ne ah gars dañ nee léegi moom amul jiyam bakkan la dagay man def mu mënoo ba mune ah waaye nañ ko def yëfi talibi docteur Niass xalaat bu am solo mo ñuy daldi wacce wàcce ñu dem ca docteur euh, Ousmane Gueye dem biroom wax ko xalaat bi am nangam nangam mune legi wut leen kër mako fayat fayaat te kat euh, docteur Ousmane Gueye euh, ñi ko xam ne ab salaire da naka duy ko waaw mune ne kër nga xam docteur docteur Niass xam ja jëfi docteur Ousmane Gueye yi daal ñu nag dimbali nag léegi ñu ne kon léegi nañ nañ wut nag léegi ay carte barkeelu ngir ma jaay ko ci magal gi euh, euh, maanaam Abdoul Fatah Gueye technoprise ñu dem fa moom ne kon daal dañoo soxla woo ab imprimante bu mag bu ndaw kayit daalu ne mu ne le mu jox ñu lépp ñu yor ko fay un million cinq cent maag Sëñ Fallou Ndiaye ñu ànd di di mu weex mi sol ñetti fi ko sol ba mu ñuul kukk damay dox ci mbedd Touba yi parce que tànk bi newi ay bés mu la mujj di di ko sol maanaam xam sooma ma soo ma gisee dang may daw maanaam maanaam nga daal man neexuma àndal moo wër fu ne keroog sëñ Aliou sëñ sëñ euh, Ahma ba fa demee. mu xool maa ngi ne neem laxasaay gi ma takk tilima tilim bi bis magal gi daa bégg a ba indi jox ma la ma jox ma jox ma addiyee ne ma ne lii moom sa addiyee boobu la ma dem ma dem jël sëñ Modou Lo mu yéemu lool melo yi waa ci raw Ibrahim guddi gi ñu dem fa ñaan ah yéen xanaa kon yéen da ngeen bëgg a dekkal toog mbakki tum naa euh, jolof ga ci ci ceen jolof ku ne xam ne ceen la woon nga xam ne dafa mel sax daal kon parce boobu ñu amoon noonu mag sëñ Fallou Ndiaye magal gi keur sëñ Manar gi nga xamne moy sun keur gu bop ga doo ngay talibé ya, kéro ba nga fay dem bi si magal gi ma maa ngi tilim ñu kuk nga xam bo boobu amuñu keur sak dem ci talibé ya ak ñu ñaan ah mu soju mom li ko dal ni dara kripa yëpp mo wër leen waaw tanku neen waaw lola nak xam naa moom loolu moom bëri na nak Tuubaa mom fi ñu toll nii yaakaar naa ku ma ko bëggoon a def loolu yaakaar naa dana ma jafe loolu loola ñu ñu dox ci di wër di wër kon nañ ko kon kër gi ñu wër nag ma maanaam meew léegi bu jeexee nu ñuy def mag fële dañuy xëy jógee da xudus magasin par par magasin ba marché ba dañuy xëy suba ba ngoon jot li sëñ bi sëñ bi. am na loolu maanaam danañ wër ba ngoon jot léeg-léeg bu ñu amee ëpp juróom ñetti junni ci la yem ci la yem léegi euh, maanaam ba ñu ba ñu Abdou Fatah Gueye lebelee xaalis boobu un million si si seen ya ñu dem yalwaan ba sonn xam nga lu ñu ama ah, neuf cent mille un million cinq cent la moom lañ fere ci carte ya ba noppi am neuf cent mille Abdoul Fatah Guèye moom daal nañu kii nañ ko joxe naa ko joxe naa ko addiya nga xamante ne kilifa na gune kilifa na gune kilifa gune ci Touba ba ca Baye Fall ya ba Njaareem Daaru Mooti Seex si fu ne dem nañ fa yow wax la la gën a yéeme nag mooy ñëpp yëg nañ ko de waaye xam nga xam nga kañ la ko benn kilifa di di di xama mooy bu bu amee bu ci amee yitte. ci amee yitte mom dana xam kër mam jaare gi ñu xam ñu wooru nangam nangam lool nak mom lu xoromu la xam naa ne sëñ Mamour tey waxam ñu wax ci turu sëñ Mountakha man na am dana feddliwaat la xasa yu ñu bare bare borom xay ci Touba ñom ñoom sañ na ñom deug yalla amu ñu tag ci kër gi deug yalla mom mom señ bu momu ñew na fi gor gam andalon keroog bam mu ñëwee ga mom danañ dal fi suuf moom mënut wax di di di joy waye kon commerçant yi mom wax deug yalla miir bañ ni mir bi mir bi bo xolé photo yi da wid photo yi kiiw de té docteur Ousmane Gueye té euh, Ousmane Morone entrepreneur doon na wax naan légui né buñ ko buñ ko fattut kat man na daanu ma nga né photo yaangi ni dara ñu ci da wid waaw maanaam fii war naa am ab e, e, ab école franco arab warna am fi ñu warna am mana na ab ab dispensaire warna fi am warna am ah jakka warna ci warna am yu bari warna am centre de formation métier budé jigen ñaw lañ ko fi defal budé gor menuisier métallique wala bois lolu warna fi am ndax dañu bëgg xalé bi su fa génné mana dootu jaxlé dara oto bii ñu yor xantu oto bii kër moom jaar gi yor ba mu ñëw nag bu baaxoon na léegi ak xant la maanaam léegi ab tubaab moo ñu ko may de ab tubaab commerçant mayu ko de ab sëriñ nit mayu ko nag sëriñ si mayuwuñ ko commerçant yi mayuwuñ ko keroog keroog ba oto bi ñëwee bis bii ñëw ma ma ne ah ca jaraay ba man de bëgg naa ci oto bi lool waaye am naa ci am naa ci coono xar ndax bu jógee woon ci jullit yi jigon ci mouride day momay gënal mu jóge ci afok kon mom dëgg yalla kon taway bi kon mom dal des na lool kon lol lol lol lol lol lol xamna kon mom eh, fofu it lo am solo biñ ko soog tambali mars 2000 mana UNICEF ñu na fi wala boog jokkoo ak noonu boobu 3 mois kep li uni bi am 3 mois jokko ak noonu ne dañu bëgg duggu ci kër gi do ci seen loxo lu ñay dal may wone ma UNICEF day jokkoon ak ñun nee ñu dañoo bëgg a ci kër gi ma ne ko ah déet taxawal ma xalaat mu coupé ab diir mu ñu jokkoowaat ma ko ah man daal yaakaar naa daal loolal loolal wóorut maanaam daal tàmbali aw yiw mu yomb ah si diwaan daal ku koy dara am mois kër UNICEF du di di koy retiré nangu UNICEF ñu jëf leen moo ne futale tey jii réew nekk na indi guddi kaatoon ñu ñuy koske yi dikkal ndax nag ginnaaw jullit ñi defuñu murid ñi defuñu bu bu UNICEF dikkee te UNICEF moom ku ne xam ne ne moom mbootaay la goo xam ne moom mbootaay xeet yooyu ñoo ko moom Sénégal am nañ keneen am ci dërëm kon ñoom bu ñu dikkaatoon it kon nag mën naa am continué ñëw waaye nag ñi ñi ngi ñaan yàlla bala ñoo waat fekk lépp jag ci loxoy dongay bantuwaay ñi nga xam ne seen seen tuñ ba moo waxoon ne waltu bashir bi el yataama jamian ansihim bi abahum kulahine kon xanaa kon sëñ bi kon jërëjëf jërëjëf Ndekere jërë ngeen jëf waa alxadim yi nag sëñ Mamour Touré ñu sant bu baax a baax yow it nag yàlla la suñu borom dimbale ci barke mag ña salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh